buñ la waxee ne la kat lii erreur mais réew mi ñett yi daf fi am presse daf fii bind def fi une bu rëy. ci lu dul dëgg organisation ba mu ko waxal génn na lii lu dëgg jox ay preuve preuve ba du def sax le lendemain du jox sax organisation ba la possibilité moom ci unam ne la ma waxoon démb man journal bi damaa juumoon parce que kat journal képp laa ñii rectifié nañ ko jox leen la possibilité de pouvoir répondre te pourtant loolu la ñu jàngal mais duñ ko def parce que ñoo ko tey te xam nañ ne ñoo ko tey beneen bi mooy da gis loo xamante ne dafa am encore ici dans la presse sénégalaise nga gis presse boo xamante ne am na une information bëgg liggéey am lu ko démentir lu wóor lu officiel au lieu que mu jël li ko démentir lu officiel bàyyi ko xel day dem ca la ko neex def ci une ba la lendemain mu naan yëgu ma woon wala sàngam fekk na yëgoon na ko ñoo ko tey loolu daf fi am ci presse bi loolu yëpp am fi avec une telle irresponsabilité dans la presse sénégalaise am ñu taxaw naan journalistes yi waruñ leen a woo ci yoon journalistes yi waruñ leen wuyu ci yoon loolu ci lan la tegu sur quelle base parce que nee nañ ci seen liggéey lañ leen lañ la waruñu leen topp délit de presse waxtaan délit de presse dans cette situation ak su cette presse du ñëpp nag une bonne partie de cette presse si irresponsable ñu naan ñu kat de presse ñu leen dépen dépénaliser délit de presse ñu taal dëkk bi loolu je suis désolé de le dire parce que cette façon de faire dafa war a jeex ci réew mi la responsabilité du journaliste dañ ko war a interroger quelle est la responsabilité du journaliste sur la stabilité du pays daluk réew mi xool ci yan sujet la ñuy waxtaanee la ñuy def ay enquête pour réew mi mën a jëm kanam ngir suñu koom mën a dëgër ñoom presse bi seen koom sax mën a baax parce que ñun xam nañ ne parce seen presse am na ay difficulté ñun suñu biir également suñu koom mën a baax réew mi mën a jëm kanam ñun bu ñu defee loo xamante ne sax toog bu ñu ko dénkee ab direction wala benn loo xamante ne kat askan wee ko moom def ko nam ko war a defee ñu critique ko war ko yoon wi war a jaar xëy na sax mu bàyyi ko xel ngir mën a jaar te yoon ma ndax làmbali fas taxut a fasaraw loolu bokk na ci li nga xamante ne lañ xaar ci presse bi waaye boo xëyee bind lu yéeme lu doy waar loo xamante ne mën na déstabiliser am réew ñu woo la jël am ñu taxaw fii naan non journaliste waruñu ko woo presse sàngam waruñu ko woo warta demee nii lii la ñu doon xeex il faudrait qu'ils arrêtent ñi may wax waxal xam nañ seen bopp am na ci koo xam ne nag xaaw ma ko woon ci moom parce que xamante wuñu mais c'est quelqu'un que je suis et très apprécié par la crédibilité de ces informations mais aussi par les principes yu muy défendre xam na boppam bu suivre lii dina xam moom laay waxal muy journaliste boo xamante ni il est très présent sur Twitter également xam ne bu jaree mu critiquer ñu daf koy def bu jaree mu critiquer l'autre cas daf koy def situation bu mel nii am nga xam exactement la responsabilité du journaliste nga taxaw naan yow li nga doon xeex du woon lii te nga xam gravité bi waa def li waa def ci journalam yow doo woon ku mës a def ndax xam nañ sa principe journalistique parce que ku kon am na loo xamante ne journaliste moomu te loolu waroo ko def parce que xam nañ yow sa responsabilité am na loo xamante ne xam nañ ne doo ko def kon bul seetaan yenn yi nga xamante ne ñenn ci askan wi mën nañ ko def wala ñenn ci say confrères def ko nga taxaw bëgg leen a su sur la base de liberté de la presse alors que loolu mën na taal am réew loolu du dëgg du yoon loolu mooy bi si njëkk bi nga xamante ne moom lañ doon wax bokk yi ñaareel bi am na sax ñu naan Sud Quotidien mais le quotidien du moins bu bu bu bu ma jàmbal ñu baal ma mais boobu man duma ci wax parce que kaaw ma jàmbal c'est un cas reconnu des Sénégalais bu ñëpp xam ci attitude am ce n'est pas un journaliste il s'en réclame mais koo xamante ne da nga ne woon Macky Sall mooy sa xarit lu mu def nga tàccu dëkk ci wetam ba mu xëy na këlëb daanu nga léegi convertir en opposant li ci kanam rawuli bët du ma ci wax dara mais daal xam naa ne moom am na leneen lu ko tax a jóg li ci kanam nag rawuli bët deuxième phase bu live bi mbokk yi mooy la communication du gouvernement et la communication de Pastef je ne suis pas habilité à communiquer pour le gouvernement maanaam man waruma communiquer le gouvernement bi c'est-à-dire nekkul cër bu ñu ma jox du statut du poste boo xamante ne am naa ko tey ba tax ma di ko ko defal su ma ko defalee rek sama coobare la ak jàpp ne dañoo gëm projet bi gëm principe bi waaye nag am na ci loo xamante ne ñun mënuñu ko lu dul ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ngeen mës a xam ñëpp dans la communication li tax ñu mën ko def mooy ñu mën a am la waaye aussi li tax ñu mën koy def mooy ñu jox leen les coups de France jox leen la possibilité de pouvoir communiquer xam nañu ne autorités yi ñu ngi liggéey ci bu baax a baax ci yenn yi. pour waajal askan wi ba nga xamante ne xam naa ne yàggatul xëy na ñu bëri nee nañ yéex na waaye yàggatul loo xamante ne dinañ ko teg muy communication bu huilée bu dëgër bu taxaw boo xamante ne toute la communication du gouvernement dina ko ëmb communiquer de manière intense de manière claire et de manière fiable ba nga xamante ne ñëpp